La Grande Table reçoit aujourd'hui Maître Alun Abitalib Gueye, candidat à la mairie de Saint-Louis. Ils sont huit au total, huit candidats dans la course pour la mairie. Maître Alun Abitalib Gueye face à Sorifare Konate ce samedi 20 novembre 2021. Toutes les questions au menu. Les locales, les programmes, les stratégies. Maître Alun Abitalib Gueye face

ndax tey yaa ngi Pikine nuyoog waa Langue de Barbarie nuyoog waa Xarya. rabbi ashrah li sadri wa yassir li amri wa ahlul uqdatan bi lisaani yafqahu qawli assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu ñu ngi am mbégte di ñëw tey fii ci Banlieue FM nga xam ne doomu dara ko moom. liggéey fi ba wàcc teg fi lu mel nii macha allah kon ñu ngi ñaan yàlla mi nga xam ne dara tëwu ko yàlla na barkeel euh, di tamit sant mën am opportunité encore une fois ndax janoo woon nañu bi nga nekkee RTS yàlla def aussi bi nga jëlee sa retraite ñëwaat mm-hmm. accepter accompagner Daouda ci lii nga xam ne moom la nërmal macha allah solidarité boobu muy lu ñuy rafet di nuyu nag waa ndar ñëpp di ko njëkkee nag fii nga xam ne tey yàlla def na ni ba Banlieue FM moom la nekk muy Pikine wante di nuyu fépp ndax 33 quartier yëpp bu doon sama sago ma ma ma ma tudd leen wante dama koy jaar rek ci ndox waa Pikine yi. Mm-hmm. Euh, ñu tasaareel ma ko ci ndar yëpp. Mm-hmm. maître li ma jaaxal moom alternative les verts man defoon yow bu la sax waroon tuddee euh, nga si nga ni Ousmane ay <coughs> alternative les verts lu tax. Ah, xam nga li indi loolu bu depuis 30 mois.

jël suñuy bot xuus fekki askan bi fi nekk jàppale leen ci lépp loo xam ne mën nañ ko muy jël ak coton yëpp. Hmm. coton ak yëpp euh, bi nga xamee ne aussi mas mi am na bu nu fàttee ne bi ñuy def brevet ñun jël nañu ay masques yu am solo dem jox ko inspection pour ñu jox la ko pour suñu suñu doom suñu sët yi euh, stade bi bu mu jógee dégg nga mu doon hôpital kon mu doon structure boo xam ne teguñu ko woon.

cinq ans yëpp ñoo fi nekk lii bi ñu koy xeex tey ñiy wax candidat yi boobu nekk Dakar léegi nag li ñu war a def mooy jël suñu loxo dugal kër ci lii nga xam ne mooy defaru ndar mooy laaj ndar ñun ñu fi fanaan ci loolu moo ko kon bu ñu xoolee kon ah, bi ñu demee ba coalition yi rattrapé noonu ndax dafa amoon ci ñu nekk suñu biir wax naa ne ñoo xam ne dañ bokkoon ci parti politique bi ñu demee ci seen ay coalition ñenn ñi des fa ñun ñi nga xam ne nag démarche boobu moom la woon ñoom ñu tudde ñu les non alignés ndax bokk partis Nous ci benn coalition politique. Hmm. léegi ñun ñoo mujj dem ne ñun garder autonomie boobu nga xam ne xooluñu parti wutunu intérêt parti ñuy wut rek kon na lu seet fu ne doomu yi nga xam ne fi di fi te nga ñu ñu def ko du coalition sax ak groupe. Hmm. bi ñu coalition les verts nga xam coalition les verts mooy écologiste yi nga

plateforme bi nga xam ne ñu ngi ñëw ci affaire gaz ak pétrole ak ci wàllu pêche bi yooyu yëpp nga xam ne ñoom dañu ci màcc dañ ci dañ ci liggéey liggéey bu mat ñu nekkoon ñoom fokk ci région yooyu ñu ñëw bokk ci bokk ci jogante bi ci maire yi nee nga ndax ñoom li ñu mooy fexe nañ ci participer. ci loolu leen ko waaw ci loolu nag man ñun ma leen xam si leen dikk wax ne ñoom am na sax ndax ki ko fi jiite bàyyi salamaar mooy président wu équipe nawetaan la fii dëkk dëkk jàmm gën sa Kumar mooy seen président du doomu Ndar bu ñëpp xam. Mhm. moom moo fi seen représentant nekk Dakar bokk ci ñi jiite parti yooyu. mais bu mu ñëwee mu ne moom daal day set ki ki nga xam ne ci démarche ci nekki na moom Ndar xam na ne mën na ànd ñoom d'accord nañu jiital ko kon ñoom ñoo fay seen lépp bi ñu liggéey daal di ne kon ñun ñi nga xam ne ñoo doon. lii nga xam ne dañ ne ñun wéeruwuñu ci benn parti lu dul internet ak la ñuy xeex. Hmm. loolu moo tax ñoom bi ñu dikkee ñu dikk porter la candidature waaw kon ñu xam ne c'est une candidature boo xam ne rek. ñoom dañu ñëw porté ko parce que ñoo bokk gis ndax ku réglé problème mu bël bi réglé problème mu érosion côtière bi gis nga suñu cimetière bi buñ buñ ko toppatoowul dana dem ak li fa nekk. Mm-hmm. dégg nga problème environnement yi problème mu gis nga bi ñu defee euh, centre d'enfouissement technique bi ni mu mujjee. Mm-hmm. xam nga xam naa problème bi daan ci dikk. loolu nga xam ne ni mooy suñu dund ak suñu marché yi yeeg yëpp nga xam ne mooy suñu problème kon bu ñu gisee koo xam ne ñoo xam loolu mooy seen liggéey liggéey ci. te loolu moo leen yëkkati ñoom du politique politicienne moo leen yëkkati mais problème yooyu ndax nag ñun am na fu ñu xam am na fu ñu mëne mais am na yoo xam ne mais bu ñu xamee problème yi solution yi xamuñu ko kon bu ñu gisee ñoo xam ne dañu ci dañ ci dañ ci maacoo ñëw ne kon nanu ànd day doon loolu lu ñu sawar ndax loolu yëpp intérêt ndax dong lay doon. Euh, choix stratégique la euh, bu fekkee ne alternative la vers choisir nañ la yéen ànd ak yéen si jongante. municipal bi ni ñew waaye man li ma jaaxal xaw lënt sama bopp tuuti xaw lënt sama bopp tuuti moom mooy alternative le vert def na waa sax xamu leen woon xëy na peut être ak seen récépissé tey moom ngeen an moom ngeen jël pour mën a dem si jongante yi ëllëgee bu ngeen jëlee dëkk bi ñooñu duñu taxaw talal leen loxo laaj wàllu rëy si nag bi waaw fa laa bëgg ñëw xam nga euh, local la yi ndar la ñuy wax ndax foofu laa la bëgg leeral ñun demuñu ci département bi. commune bi rek ngeen parce que ku xam maître gi xam ne waxu ndar rek man dama daan wax ne sama Sénégal mi ngi am ko hôtel ku mbobal hmm. kon ma suma wuti nit ci ci ci am naa fay xarit nag ci département bi mais nag du woon sama sama mbir ndax yow ku ma ku ma xam xam ne man waxu ndar. Hmm. mbiru ndar xeexu ndar rek ma intéressé beneen xeex intéressé ma. moo tax Ousmane Masseck bi mu ñëwee fii. man booba daf ma jël en tant que membre société civile ku bokkul benn dégg nga boole ma ci loolu sax moo bokk ba politique presque ma def ci quelques piges hmm? loolu loolu loolu moo ko indi mais munul nekk ndax wax naa ne ñoom liste la liste la boo xam ne dégg nga seen représentant fii ñaar ba ñett ci nekk hmm. ndax ñun dañ ne woon kenn duñu paajoo ni coalition yi def duñu paajoo les partis bu ne indil ñaar indil ñetti indil ñetti déedéet ñun dañ ne nan dem ci femme du développement yi seet ci imaam yi seet c'est-à-dire ndax li ko composé yëpp te ñu fi fanaan nag ndax ñun suñu loolu la suñu liste boo ko ubbee ñëpp fi la ñuy fanaan. Mm-hmm. dégg ñu ne kon nañu fexe ba ñoon ñu am njëriñu ndar di wax waxu ndar toujours ñu boole leen ci kon ñoom ñoo ñu fekk si ci lu du ñu ñoo leen fekki ñoo leen fekk si ñoo xool ne kat ñoom programme bi xam ne moom lañ taxaw ñoom. di wàll gi ñuy xeex nga xam ne moo gën nekk ay problème ndar loolu loolu moo tax mais man ma xam sama fulla sama fayda ak sama bëgg ndar naa ni ñun duñ tong-tong ndar comme ni gaa la mu daan doxal. nitu social nitu social nga mais dafa mel ne tey jii tey da ngay doon ëllëg nit boo xam ni dina yëngu bu baax a baax sax si wàllu environnement ndax li la porté dëgg la wala déet. très très bien mu xam nga boo nee social xam nga ndar. man lépp ndar daf ma intéressé xoolal tey passé naa affaire football mais bi ñu waxee stade bi daan ci ñëw gisoo dama ñu hmm, xeex ko. tout à fait dégg nga. Hmm. mbirum mbirum hôpital bi mbirum ba ne dañuy bu ne de bi ñuy bi ñuy wax ne dañuy soppi turu rue yi donc hmm. kon boo seetee pàcc ku jóg intéressé na rek daf ma intéressé dama ci jóg. waaw ba xam ne kon lii nga xam ne nag dafay dafa dafa am importance muy problème bël bi. Hmm. muy problème mu érosion côtière bi nga xam ne léegi bu ñu deful nag cimetière yi dana am problème. Hmm. dégg nga euh, dra dragué wuñu ba léegi fleuve bi. fleuve tey nga xool ne suba day am ay plateforme yoo xam ne dañuy ñëw dugal def ko ci pour affaire gaz bi ak pétrole te kooku ku wax ne du impacté du am lu mu yàq ci napp gi waxoo dëkk. Hmm. ndax ñoom am nañu lu mu doon ndax li tax ñu ànd ak ñoom bi ñu dañu wan lu dal suñu xel. ne kat lii lii lii lii yéen seen problème lii la xam nga ki ñëw ne la sa problème lii la. solution yii la ñu yaakaar kooku daan ne kat kay jàppale ba ci. kon ñoom dañu ñëw jàppale ñu mais ñun ñëwuñu jàppale leen. léegi mën nga ma faram-fàcceel ndax yow yaay ku jëkk si candidat yi ma recevoir mën nga ma faram-fàcceel si euh, juróom-benn candidat yi nga faram-fàcceel ma si tënk rek programme bi nga xam ne nar nga ko jébbal waa waaw euh, juróom-ñett la ñu. ah juróom-ñett juróom-ñetti candidat la ñu ah d'accord euh, boo seetloo de kenn masul dem ba nu dooree ñoom yépp kenn masuma dégg ci rajo kenn masuma dugg ci télé ma man candidat la ndax xam nga lu tax loolu laa doon bañ ndax xam nga bu fekkee nañ dëkk gënoo fa kenn mais kenn ëppale wu la te man wax naa leen ne li Sëñ Fallou doon wax ne moom mooy Sénégal mën naa ne man maay ndar ndax ba mu jàngi ba tey maa ngi fi te comme ni mu waxee xam nga da nga mën a étiquette parce que ndeex lu ndar nekk maa ngi ci. Hmm. waaw lu nit nag contre maître ak nekkul sa waay loolu moom di ko ko di nga ko ko seedeel kon nga xam ne ñun démarche bu deful ñu même démarche ndax ñoom dañ ne man maay candidat la am naa programme boo xam ne mun naa ko defaree ndar kaay leen jàppale ba ci. man ay naxe la man mun bok ci naxe tax lu tax xam nga ndar ñun ñi fi ñun ñi fi fanan kan mo nu gën xam suñu problème mais bu bu bu kuy kuy kuy sa bop ak ku ñuy sawe dana ben boy sawé sa bop dana gëna gaaw tay ji yow bu ñu la laajoon laaj kanen suñu problème ñun ñoko xam wante yow nga tok ci Dakar nen ya ñu upp xel réfléchir ne kat légui kat seen dëkk bi tok na juroomi at Dakar mangal ca la ma neex léegi ñëw naa ah jox leen ma joxee seen dëkk bi danaa nga defaree nii dañu waroon au moins laaj ñu ba pare. da gis ne loolu ay naxaate la. waaw ma ne ko bien sûr. parce que seen bopp ma ne kooku ko def sa bopp sa bopp la parce que da nga wax lorsque dafa am lu am <clears throat> lu am solo seetal dëkk bi dëkk boo fa dëkkee daa fay électricité te xam ngeen ne taxe électricité bi am na luy dem ci budget mairie bi te budget mairie bi la ñuy defaree. bo amé que da fay taxe ordre ménagère bo amé titre foncier dang da daa daa fi taxe foncière dama lay wax né candidat yépp man ma fi mën yëkëti man né sama facture électricité ngi ni damay cotiser sama sama sama euh, imposition fi ngi ni damay cotiser ci maire bi sama taxe foncière yépp donc damay lépp dama koy cotiser fi ci maire bi kon nag parce que da fi yeewoo dama fi yeewoo kon nag yow bu fekkee ne yaa nga fale kon yow sa programme da nga ko basé uniquement si ça man mu ndar laa fii laa dëkk déedéet moom fa laa la bëgg foofu laa la bëgg ñëwee ne à partir de ce moment xam nga li ma wax ne kaay jiitanu moo gën kaay ma jiite leen ba xam ne à partir de ce moment wax naa ne man sama candidature te bu ma posé que de ñooñu ma la wax les non alignés bi ñu toogee ci seen biir wax naa la ak ñi nga xam ne du politique ñoo ne maître kaay nga jiite ñu te booba ñun dañ doon wuti ndax dañ doon déposé ci caution ndax booba dégg nga buñ la jiitalee yaakaar nañu dara ndax gardé woon na jëloon nañ suñu disposition ndax bëgguñu woon kenn phagocyté nu bëgguñu woon benn coalition politique wala kii ñëw imposé nu ko que ce soit te moomu ci am. Hmm. ndax ñi ci bari dañ ñëw ne lan maître maître kaay nga jël département bi ndax bu nu àndee ñu gagné ñun ñu jël ñu jël commune bi. man leen mais kooku bu ma ko waxee waa Ndar daan ne ma mais maître li ngay wax gëmoo man département bi am naa xarit fu ne Paal Sàkk la mais sama yoon nekkul foofu. ku la wax loolu doo ma wax kan moo ma ne bari na ci candidat yi laa wax. biir candidat yi may dégg waaw ñoo xam ne ñëw na. département bi nan la yéene. ma waaw kay dépp man lu sama yoon ci département yow parti yow mi yeewu nu yóbbu la si département waaw man mi ne leen kooku bu ma ko nangoo ça diir dire que sama bopp moo tax ma jóg. man paajoowuma ndar man nek le dernier mujj ci liste commune bir ndar bi moma ma gënal jité département man len buma ma ko kenn waxati parce que problème gëm-gëm la ma am ak ma ñak ndar pik ak pel ma fi gëlé ma dem Touba luma am nak ci ndar buma ko togué di fi fanan ndax man fanan fu ma fanan dama yaakaar aw sécurité lima am as ko bokk ak waa ndar loolu di naan bu ma dayoo ñëw bu ma tubaab am ma beneen am ma beneen préoccupation ndax boo seetee bari ni ñoo xam ne dañ ko def escalier lay doon ci ndar. dégg nga liggéey dëgg-dëgg ak la leen intéressé moom la ñuy leen di ba vendredi bu nu amee temps weekend la ñuy ñëw ndar waaw mais mën nañ continuer damay toog ca Ndakaaru bu yéesaay bu ma amul jot ngeen indil ma si signé leen ñun bu ñuy am problème wala ñuy dee wala ñuy lab. yow bala ngay ñëw di def 5 heures de temps ci route bi amuloo fi kër amoo fi dara mais il faut qu'on soit sérieux kër ma ne néeg ko fa fanaanul xam nga problème mu néeg ba. wala boog da nga koy dégg dong. ni ma la déggee dafa mel ne da nga tënk lépp sa programme sax da ko tënk rek ne que yow doomu ndar nga fii ngay yow bokk ak ñi nga xam ni daanaka wàll yàlla ndax weekend ba weekend lañ fi ñëw. loolu ma niru de. ma loolu moo njëkk parce que xamul tax. gestion wu commune moo gën a jafe gestion état ndax problème rek la ndax bul fàtte ni code des collectivités locales dafa def ne la participation citoyenne. Hmm. la participation citoyenne c'est-à-dire citoyen moo di moo nekk ci kanam nekk ak ci digg bi moo nekk hmm. mais kon problème yi c'est chaque jour chaque jour waxuma rek parce que ñu koy fanaan parce que chaque jour te dama ne problème yi booy wàllu sa bopp loolu nag wax naa la hôpital bi dama lay wax hôpital bi mhm. tey jii bu ma feebaree fa lañ may yóbbu ñëpp xam na ne hôpital bi kenn amul yaakaar ci moom tey ñoom tey ku ci pikiiru dégg nga ca clinique yi gën yi gën yi gën mag Dakar ngay dem donc ñun problème mu ndar yi daf ma interpellé parce que dafay sama problème mais ñoom ñoom nen pour régler problème Saint-Louis il faut que ñoom ñu nekk Dakar bu ñu fa nekkul ministre nekk fa directeur xaw dama lay wax ne la un maire résident naa ne fajul fajul problème mu Saint-Louis walaay ñëw loolu loolu loolu wax ñoom waaw dama lay ñëw ne la problème bu dak problème ban la réglé Dakar wax ma boobu ba léegi ministre yi ñuy wax ban ñaata ministre la ndar am nanu xol ban impact le ministre yooyu am ci ci dundul ak avancement ndar tay la ndar gën delu gannaaw tay la ndar gën gën delu gannaaw kon lolu ay waxit la xam nga problème moy modi motax moo ma ne ñun bu ñu réfléchir ñun ñi fi nek xam nga muy man di yow ku ci ne ndax bo réfléchir rek am solution. tout à fait dégg di nga ne kat man lan sama problème bi lan mo koy fajj dégg ndar potentialité bopam ju mu am seetal ba ci yaaboo yi dañ koy tuur yeesaa yi dëgg la ñoo fi dàq jënd tong yeesaa say guddi ñu jënd ko door mayonnaise bi dégg nga euh salade bi yoy door ko reer mais yaaboo yi dama ma wax la ni xolal yaaboo yi amatul xolal xoolal ma wax la amatul période am la day am période yo xam dañ koy tour moo li tax ñu am ben usine fii

moo ni tey leen gën a jooy tey fii bu nu demee ci ci bi ma ne patrouille mauritanienne dañuy fekk si ba fii jàppaleen tout à fait ban problème lañ ko réglé après patrouille de Dakar dama la wax ne la tey jii danaa la wax tey jii BP bi mu fi ñëwee parce que ñoom kii bi daf leen dañu intéressé wu ci bokk ci affaire affaire affaire plateforme yi yi def euh, kii bi exploitation wala. waaw mm. exploitation gaz bi. Mm. ba ñu ñëwee gisuñu maire gisuñu kenn ci ndar xam nga lu ñu def dama ne dañu woo équipe nawetaan di ko may muy nawetaan te dama ne wax ne bépp seen seen budget de fonctionnement moo ëpp budget état du Sénégal xam nga kon bu ñu. compagnie BP bi ñu ñëwee ndar gisuñu amuñu interlocuteur. ma ne anam. amuñu interlocuteur la ñu woo may leen may leen may leen ma ne leen ay mayo man kay li may wax nii may dégg te man ku ma xam-xam ne du ma wax caaxaan mu metti ma lool ndax bu fekkee ne woon am na ñu mat ñu fi fekk dégg nga boobu bu ñëwee daanu woo mooy li ma la wax démarche participative man loolu laa gëm démarche participative waxtaan ak ñi ne leen lan problème bi la ngeen mën posé. kon te boobu bu ñu ko laajoon waa Gendar danañ wax ne. Mhm. écoutez BP ñun lu nu bëgg. rek saxaar yooyu nga xam ne moo fi daan ñëw wutan leen ñett. Mhm. dégg nga seen relation may nañ ko. pays yi nga xam ne ay ay Guinée Bissau yow fexe leen ba am quelque licence def ko te ñoom puissance bu ñu am ku nu wax ba xam ne kon kee Ndar boo dematul géej sax ndax plateforme yi dana créer hmm. ay problème ci ci napp gi c'est vrai que ku toog sax sa kër daan napp mooy li ma la wax ne dama ne explique à partir de Dakar les gens mooy li ma la wax xam nga ñun c'est des problèmes ponctuels yoo xam ne dañ koy vivre dégg nga mais di xool nit ñi looloo tax ñuy wax dégg nga euh, le leadership dégg nga local hmm dégg ñun moom lañu ñu incarné ndax leadership local moom laa la wax ne euh, boo xoolee code bi bu ñu wax la participation citoyenne mooy loolu. Hmm. leadership local mooy nekk ci dëkk ba dëkk ci dëkk ba jëriñ xam problème dëkk ba jëriñ dëkk ba te boobu wutoo dara. yow leadership bi ngay réclamé ni wala mën naa sax paternité bi mënoon mënoon wax ni yow am na keneen ku koy réclamé à saint mais yow xamee na la si bu baax a baax tey ji boo jëloon dëkk bi jël ndar. fan ngay jëlee koppar yoo tabaxee dëkk bi wala boog soppi am dëkk bi. waaw xam nga boo seetee bari na ci yoo xam ne fii chantier yu bari yoo gis fii du maire bi de. état bi maire bi man conseil municipal la. 2 milliards mooy sunu 2 milliards lañ am comme budget xam nga 2 milliards de mënul sax def 1 kilomètre. tënk mais entre guillemets dégg naa daaw conseil municipal de yow. dégg nga yow dootoo dem conseil municipal bi pare. man ma suma raté ah. ah gars yi nen yow doo doo ñëw conseil municipal dama koy wax mais rek may dégg ñeneen ñi ñu ngi may dégg ah te damay dem te damay participer dans chaque bu ñuy voté budget bi yaa nga fa lépp déggoo li ma la wax mais maître mais ñu ngi dégg ak situation yi ndar di dund doo génn sax wax ma ne xew xam nga xam nga dafa am ñaar xam nga euh, mbir yi loo xam ne discuter na ko ci conseil municipal hmm. danaa wax ci le conseil c'est ci biir conseil mais nag dama am loyauté ak esprit d'équipe buñ ma minoriser man danaa am ngor bu ma ma ko wax dama la ci jox exemple rek. Hmm. ferraille pont bi bi ko millions déjà 180 millions ci ferraille pont bi bi ñëwee conseil municipal ñu indi document bi dañu ne proposition bi ñu def bureau bi ak maire. Hmm. moo di millions yi dañuy jël. buntu pikin defar nga foofu nga gis ñu ñu def fa zinc bu def ko mu rafet. Hmm. def fa je def fa terrain yu ndaw et cetera et cetera dégg trente 30 hmm. millions yi nañu jël si ko maison de l'île 30 millions. bi ñu waxee loolu ma ne leen mais le problème moo di cent cinquante million nga jël def ko foofu c'est-à-dire boo duggee mberum ganaar quoi. boo hmm. duggee fii buntu bi rafet. boo bu nu doon waa gannaaw raay. wa waa Médina Bois. laaj leen dégg nga ñoom jàmminaar mm-hmm. waa jàmminaar waa Pikine ne leen lan mooy seen priorité danañ la wax ne nan ko fay def école mm-hmm. nan ko fi def dispensaire la neen te loolu sax muy am symbole te ñun ñëpp danañ d'accord ne kat suñu pont bi lii lan ko defar mm-hmm. mais lii boo ko defee mu rafet xoolal bi nu def bi ñu fa defoon te boo fa defee football a 8 wala football à 4 foofu route la bal bi dem nga dem di jëli bal bi oto ba rey la far ñëpp rey dégg nga ma ne les 30 millions là 30 millions

am na capacité na mu defoon jóob si abal ko ay oto bi mu bëggee defar ndar bi mu bëggee nettoyer ndar mu def ko. Hmm. ma ne nan bàyyi loolu yëpp man leen xam nga man dama am maladie de la paix damay tabax damay tojj tabax rek kon xam naa suuf lu muy jar bu baax. Hmm. xam naa 4 mètres cube xam naa 8 mètres cube xam naa 16 mètres cube 16 mètres am na ku nekk sama ne ma boo jàllee po ne ko nan bàyyi sax boo jàllul po. Hmm. nekk 30 millions boo ko divisé dégg nga 16 mètres cubes, il 50 000. Si vous divisez, il y 600 camions. Il y a 1000 camions. Il y a 1000 camions. Si vous multipliez par 16 mètres cubes de camions, il y 9300 mètres cubes. Il y a 1000 mètres hmm. cubes de camions. Je ne sais pas si vous avez des camions. Je ne sais pas si vous avez des camions. mais dañ ma minoriser. mais loolu génn si biir 30 millions ñëpp xam nañ ko. dama lay wax ki njëkk wax ki njëkk a wax pikin la dëkk. daf ne parce que ci fay la bokk. waaw tout à fait. nga. Hmm. benn bokk yaakaar la bokk ci maire bi la bokk xoolul li ma wax ne intérêt Pikine la xam nga nu ci teg. Hmm. daat ne li maire li nga bëgg a def ci bunt pikin baax na ku yomb mu rafet. ñun defe naa ni dindi ndox yi nga xam ne. waa jàmminaar waa kii waa waa dégg nga gannaaw raay pendant trois ans ñu nekk fa ñun ñu fay dugg di xuus. Hmm. parce que mënuñu fa bañ dem suñu ay mbokk suñu ay xarit ak lu xew daa dem defe naa loolu moo ñu gën a nekk pour dire que ne donc dégg nga la noonu beneen bi mooy ndar defar ko mbox naa la déglu nit ñi ndax problème mu problème mu ordures ménagères yi. Hmm. boo seetee dañuy defar tàkk gi. mais fu nuy ramasser ordures yi rek fa ñuy demee nit ñi tuuraat ci gannaaw hmm. mais ordure da nga koy fekki ndar boo ko bëggee def xam nga delloo population boobu moo tax ma ne la bi xam nañ ko moo di conseil dégg nga conseil de quartier yi ñu def quartier bu ne am na conseil de quartier mais ni ñu ko tabbee xaw na doy waar tey boo ko defoon xam nga conseil de quartier bu ne daf moo waroon nekk émanation maire bi. day nekk mini mairie ci quartier bi. nga xam ne déjà président conseil bi daa ko def mu nekk dégg nga moom euh, dana mën état officier d' état civil seetal mardi bu ne tribunal da ngay gis ñaata doomu ndar ñuy ñëw di wut kayit di dugg di dugg ndar duñuy wut mariage parce que duñu dund ndar yi saa dese parce que ñu ngi ndar te boo ko defee moom ku judd ca carte ba dana la mën defal kayit hmm. dégg nga ku mariage ci jàkkaar ji mu defaral leen mais bu fekkee le conseil de quartier même le président du conseil quartier bi quartier bi ko. ne ko nit pas da ngay sa nit mais da ngay def quartier ba ñëpp nga fa nga fa nga fa ñu maison conseil de quartier bi. Hmm. ci suuf nga def un dispensaire bu gis malade di hôpital. bu dessé katan daf na lu buñ ma fa yobbu yobbu ma dispenser Ousmane Gom wala ci militaire yi tout à fait tout à fait yi say parce que mi ngi xalat bala ngay dem bu egg ñu dagal ke tikki malgré que déjà accueil bi problème la mhm. ne la demal jënd ay garab mhm. bu ñuy dé sax dañ lay gën jëndaloo ay garab rek yow nga xol ne yow ñi lay indi problème bi bobu 2000 yi ñu naat di la jox lek di ko indi ak lek ga ak yi yi saa nit yi dañ la japp ba fa ngay faato sax té légui buñ ko defon ci quartier bi bayila fa ñu def force ne am benn scanner dégg nga c'est-à-dire am na ci yokk ak rajo doo soxla dem hôpital xam nga boo bu dee dis ñu defal la sax yendal la ci sa koñ def la fa nit ñi di la seet mm-hmm. lu nu am di la dimbale xam nga ni la seet xam nga sa xel dana daal dana daal dégg nga mm. yi fu mu jógee suñu kër yi sunu koñ yi boo nee conseil de quartier bi ma ko seetal ne yow tey ASC yeeg yëpp bu ñuy def seet seetal maire yeeg ñëppay ñëw ca quartier ba mais xale ba gën tuuti boo ko nee kaay ma fay la cent mille francs nga dem bale ji buntu kër gouverneur mu saaga la donc loolu ngay dégg nga mais pourquoi doo def ak ñoom ay protocole ne leen léegi lenn la li France partout xam nga dafa am sachet plastique yu ñuul yu ñuul yu ngande yi mm, mm. mu yow Europe loolu la ñuy def mm. dañ koy subventionné kër gu ne jox ko conseil de quartier mu jox ne leen hé timis ngay génne sa sa sa sa mali sa mali xam nga lan lu la sant tekk ci bunt bi moto yooyu nga xam ne ci gannaaw dana am foo ko def len mhm. yow conseil cadre bi jox na leen da ngeen def protocole xam nga lu ñuy def nga ne leen 11h ci guddi wala 10h ci guddi tel bi tel place ngeen koy indi oto bi day ramasser. <laughs> mais mais fii bëccëg la ah. <laughs> mooy li ma la wax xam nga mooy li ma la partout ailleurs c'est-à-dire xam nga mooy li ma la wax xam nga loolu boo boo gisee ma mën ko wax parce que ko dund. te bu ma koy dund comme yow ni koy dund daa réfléchir lu tax moo tax ma ne la ñun bokkuñu démarche ñoom dañu ne ku si ne nag sama daf ci am ñoo xam ne dañ ne suñu këyit a ngi nii suñu programme sama programme a nii man mii nii laay defaree ndar man dama ne ñoo leen gën dàq xam fuuf nan ñuy defaree ndar ndax ñun ñoo xam suñuy problème ak lu koy faj. li yow li ngay li ngay dund si ndar moom nga teg comme programme. c'est ça waaw parce que ak solution yi nga xam ne pas sama solution pas sama solution mais solution wu ndar. ndax dama lay wax ne nee naa leen man ñoom man ku ma ci toog billaahi ci ndar dinaa lu dugal foo xam ne boo laajtewul doo génn man maay daal lu ndar. waaw mais euh, maître euh, sa intervention xaar yàlla si woon na fi mais alaana euh, ñuy toog si studio bi rek samay source de ni ma maître daanaka moom moom xaar yàlla ndax dëkk mës a politiser. ndax xamoon na ni moom tôt ou tard dina nekk candidat. waaw war nga mën a tontu si loolu. waaw très bien xam nga danaa la wax ni la gis nga xaar yàlla bi ma koy xam booba action sociale rek laay def booba xam nga man wax naa ne Ousmane ma sekk à fait moo ma dugal ci. conseil municipal ni naa néew en tant que membre société civile xam nga kon bobu parce que bobu ma ngi jóge Linguère di def ay groupement di ko dimbalé jigen ni hmm. parce que buma daan joxé fukk dafa na sama ngor moy na ma au moins buma ma leen joxatul yëpp jox ci jox jox leen ci touti hmm. deng nga bi ma defee noonu ma ñëw ma am suma ben nit ko xamné ma ngi koy nuyu muy Adama bu dëkk gën hmm. di un homme de conviction di gor vraiment di di di ko xamné awma payam deng nga mom papaam moo moo defar moo tax naan xaar yàlla kër Cheikh papaam moo ko sos. Hmm. bi mu defee loolu bi mu gisee dax action sociale mu ne sa action sociale yi xaar yàlla parce que amul na ndox mu nu naan. Hmm. am na ku fi jaaroon bi Ablaye Wade di bëgg falu wax leen que may deux ans ngi ñuy gisum leen ma ne leen écouter man bu dee alal ji bu ma xamul sax mën naa ko wuti mais xaw ma yan possibilité lan mooy handicap yi. Hmm. topp ko moo tax ndar fu nu dullee war nañ ñaane Ousmane sekk ba mu ko waxee ma sekk mu boole ne Oumar saar mi lay ñu boole ne wax directeur général SONES boobu SONES la du SDE hmm. mu wax ki fii nekk nañ ko defar bu ñu ñëwee ñu ne ma ah mun ñu ko defar ndax font bi moo fi nekk mais fekk na hmm. waxaar yàlla déy ma ne ma tubaab bi nekk ci bopp koñ bi am na ndox bi ma delloo ci ci directeur bi mu ne ma ah mënuñu ko defar parce que font ma ne ko mais fi tubaab bi dekk même fu compte waaw defal leen ne ci font bi bonn fontaine bi danaa ko fay bis bu ñu koy dindi ñu dindi ko kon loolu moo ma dugal xaar yàlla hmm. bi ñu demee tamit ba jamono soppiku ba mu yaatuwaat ba mu yaatuwaat ma defaat fa beneen bonn fontaine hmm. kon loolu bu ma koy def sama diggante ak sama borom la parce que bari na fu may def te du ma ko wax ndax dama ne ndar aussi bu ma joxee fukk bu may kor bu mu mënul delloo genn wàll gi delloo si ñaar. Mhm. problème gëm-gëm la looloo tax ma ñibbi si dara bi ma jàngee ba pare. Mhm. des desoon naa je ne suis pas un très bon avocat mais je ne suis pas doon wut xaalis rek dégg nga Dakar la ëppee mais dama choisir mais ndar ma tout donné xam nga loolu donc loolu moo indi mbir mi. Mhm. looloo tax problème bu am xaar yàlla du man maay dem de ñoom ñooy ñëw ne ma tel problème am na. mu jug dox ci bu ma waree gis maire du gis ko waxtaan ak noonu dégg nga li koy waral mooy bu ma ko doxee sax ba maire di leen rencontré dama ne leen dox naa ko ba pare maa ngaa dem mais maire ci boppam moo ne moo ne ana maire ñu ne dem na mu ne déedéet parce que bu fekkee ne dox na dox gu rafet bii ba ma mën daje waxaareel di waxtaan nan ko woo mu toog kon nga xam ne du sax. amuloo benn coloration politique dama ci bëgg impact. parce que dama lay wax ne bu kon yeneen quartier yi. dama ne xam nga nit waxoo ko defal trottoir du xaar yàlla rek laa dugal dox de bari na quartier yoo xam ne. Hmm. waxuma bonne fonctionnement ko fa dugal mais même ay branchement mais comme que dama ko defoon parce que ci gëm-gëm rek te continuer ko def leen ñaata plan laa defal pour les femmes. parce que hmm. en fait loolu laa gëmoon bul fàtte aussi ne man ma dégg nga et fii defoon naa sax mutuelle boo xam ne maa génn samay locataire joxoon ko femmes yi boo fàttalee ba am ñu hmm. ko lakkoon ba dem kon nga xam ne.

da nga campagne ak ñoom Bamba Dieye ñoom maître Alioune Badara Cissé moom tam ñu koy ñaanal yàlla ngeen gagné mairie bi. waaw foofu laa ñëw ànduma woon ak ñoom Bamba Dieye bokkuma ci woon boobu culture Sénégal. bokkoo si woon. de parce que pour la gouverne boobu bi ñu dikkee dégg nga ma xool ne boobu amoon période de froid ak Ousmane Seck parce que par rapport ak certains choix. ak ñoo xam ne ñu ngi woon ci biir xam nga rek. Ah, politiciens yi bu ñu demee ba gagné dañ lay siis. dégg nga ñu jël ko presque en otage te ñi ko siis te te ñi nga xam ne ñoo créé woon loolu ñoo ko mujj trahir. Hmm. moo tax boo fàttali ko boo fàttali ko Masseck moo moom jox poste député. waaw moo ma jox post député. tout parce que après compagnonnage bi dafa xool ak intérêt Ndar ba mu feebaree ñëpp dégg na daf ne dégg nga sama homme de confiance nitu confiance laa koy jox man du ma du du ma sama yaram neexul du ma nekk député. Hmm. j'ai pas besoin de ça. mais am na ñu ko gën jege ñoo xam ne ñu ngi ci parti bi yëpp mais ba mu defee man la ko jox xam nga kon mu bokk ci sasi yow gis nga Golbert fu ma defoon donc man dafa am lu ma lu ma loo xam ne héritage boo xam ne waxuma sax man ay héritage yu jaamur ci ndar ñoo xam ne dañu bëgg ndar doon liggéey ci ndar am fu ma teg am lu ma wóolu yaakaar ne. Hmm. sax bu nu wonee gannaaw danaa ci taxaw kon bu may ngor dégg nga naa ci xeex. loolu moo tax bi ñu xamee ñuy def xam nga booba ma dikkee ñaa sama xaritu benn bakkan. Hmm. cundun ñaar nit benn nit la nu su ñaar jabar bokk ndey ak baay taaw moom laa ko tuddee sama taaw bi ñu amee treize ans ñooy ànd xam nga boobu moom il était avec avec Ablaye Wade hmm. avec Ablaye Wade hmm. donc bi ñoom ñu ñëwee ñu ngi may dégg ñoom docteur Kandji ñoom ay Aïda Mbaye ñoom ñëpp ñëw ne ma écouté dañu bëgg rek nga ñëw hmm. booba Bamba Dièye les gens ne voulaient pas de Bamba Dièye booba de

dans ma démarche mësuma loo gis ma yëngatu par rapport ak Ndar parce que dama dem dans des coalitions politiques parce que intéressé wu ma ndax wutuma carrière politique man wutuma nekk ministre wutuma nekk président de la république. Hmm. Ousmane Masseck moo ma joxoon dinañ ko xëy. Euh, waaw lu ma solonoon la. Hmm. parce que dama daan xëy dama daan dem xëy dem balay ñibbisi xëy mu demaat parce que dama. doo ko faral da ngay da ngay dem di fanaan di dem ñëpp a gisoo a fallu que presque dégg nga que en oto bi oto bi oto bi ma joxoon daf daan mënatul woon tenir la route. mais maître yow yaakaaroon ni da nga yéex a déposé sa candidature en 2014 lu tax demoo woon si joŋante yi. waaw mais xam nga booba dama ñëw booba j'étais avec mon ami ABC qui est un frère dégg nga euh, boo seetloo booba. maître yow da nga bëgg trop di laqu si gannaaw ASC mon ami mon ami mon ami mais yow doo fasal sa bopp. non non non euh, wax la parce que ABC bi bu dikkee. mais yow ndar la yow yow waa ndar yow la ñu xam. pourquoi yow toujours nga bëgg nekk si gannaaw gars yi ñëw parce que dama ne xam nga loo gis étape la Ousmane Masseck ba muy ñëw dama lay wax Ousmane Masseck ba muy ñëw dégg nga mhm. parce que ñu woon fay alternance boobu yooyu intéressant affaire football xam nga man yooyu rek moom la doon toppatoo mhm. dégg nga bi Ousmane Masseck demee après Ousmane Masseck wax naa en 2009. tout à si la présenté wu man bul fàtte dama présenté wu. ak ndar rek gis rek. Hmm. dégg nga bi ñu ñëwaatee ak ABC dégg nga on était ensemble. Hmm. ma jiite la liste proportionnelle mu jiite la liste majoritaire. Hmm. j'étais de liste comme moom. dégg nga loolu taxul ma nekk ah député conseil municipal mané conseil municipal ñu tout à fait parce que ñu alors ABC était liste majoritaire hmm. mais ce qui est sûr aussi pour le na si la am de déboires tout à fait hein? hmm. euh, taxawal la dama lay wax man man te je suis très régionaliste laboratoire man dara kenn du laal dégg loolu bokk na li ma ko sàttalee. Hmm. dégg nga parce que li mu def bokk ci ñuy def APR ak sor bi ñu ko defoon dégg nga il mérite mieux. mais c' est là où il a problème. alors si dans dans dans l' entendement des scènes. ci loolu. moom mu jiite mu jiite la liste bale ma jiite liste bale. Hmm. xam nga booba kenn xamagul kuy nekk maire parce que il fallait que nga ngeen gañe ba pare ah toog waxtaan. Hmm. dégg nga. mais proportionnel yi automatiquement xamoon nga ni da ngay nekk. conseil dégg nga euh, waaw mooy li ma la wax mais xam nga bu ñu gagné woon liste bi yëpp. dañuy toog ah waxtaan même ci au stade dégg nga boobu discuter boobu donc boobu ma ngoog l' essentiel dégg nga si làkkuma gannaaw kenn j' étais parti ñu ñu ne ku ne da jël benn tête de liste. on est ak dañ dem à égale dignité. dégg nga ne woon tamit bu ñu gagné dañuy toog waxtaan seet ba xam li gën ci ndar ñu doxale ka bii maa man maay candidat kon nag amul benn. boo ah, xam ne bii moom dafa mel ne da nga mettre nag jël na responsabilité taxaw xam nga lu tax lu tax ma réussir mais dafa yéex xam nga lu yëguma wax naa ne mënoon naa ñoom bi ñuy wax ma wax dégg nga mais dama ne bu fekkee ne yow danga bokk ci ndar ne man ñi may dëkkandool ñi may nekk ndool mais bala ngay wax ci ay rajo fexeel ba ñoom ci seen bopp ñu xam lan la ñu ndax doy nga leen wala am nga ñu bari ñoo ci doy boo seetee wax naa la ne ñoom dañu déclarer candidature man dañ ma proposer candidature du benn mais nag dama lay wax lenn gis nga yëf si. mais mbaxalu doj la dama lay wax mbaxalu doj la. voilà bëggoon nga waaw mbaxalu nga dama ne mbir mi mbaxalu doj la ndëkk sóor taxul nga njëkk yàq de. xam nga lu tax am na ci ñoo xam ne dañuy dem ñu xam leen man ku ma xamul ci ndar ma ne. Hmm. xam nga bi ngay wax di ma présenté da nga ne ma assise sociale. Hmm. assise sociale bi ma am amul ku ko ci am. dama lay wax nela bari na ci ñoo xam ne tey jii bu ñu toogoon seen quartier ci boppam la ma fa def defuñu ko fa. te nit ñi dama lay wax de billahi dañuy dañuy fàttu parce que lii nga wax nit ñu bari dañ doon mais ndax maître du présenter du présenter xam nga déjà bu lay proposer il fait déjà non yow yaay joxe impression bobu da ngay bàyyi nit ci la président dégg def non def nañ la def nañ la candidat xam nga nit bu ni posé la ci lutax dégg motax bi ñu ma waxé ne candidat proposer ma candidature dégg mané len légui leen wax nit ñi kat proposer nañ sama candidature nanguna et moi

ba xam ne donc man mon problème comme tu me dis je me pour Saint-Louis pour l'intérêt de Saint-Louis tey nag bi ma xoolee leadership local boobu comme ni ko waxee kenn gënu ko incarné bon ma xool nag ne en face li ma am mooy la may jooy li ma fi am en face la may jooy maire samedi dimanche dafa doy dëgg nan waxante dëgg maire samedi dimanche donc day dëkk bi da nga koy jokk fi fanaan xam problème mu nit ñi xam problème mu dëkk bi ba pare toogul ba ba am ndax nit ñi dafa am lu am importance xam nga ñuy laaj ndar ñépp dañu war a toog ne hey nit du ñu ko jàppee ci digle xam nga politicien moom ak kuy wut. Hmm. jikko kuy wut bokkul. seet ba xam kii kat dundam ak ndar dégg nga hmm. lan la def ba ñu war suñu xel war dal nekkat kii ba mu koy def booba doonul dara bu doonee dara dana yokk loolu moo am importance te dama lay wax ne gis nga dama ne je suis prêt. à faire face à face avec n'importe quel candidat les yeux dans les yeux ñu toog. Ah, face à face wax ma la déglu ma la. <laughs> Mm. ñu ci sa quartier bopp. ak ci ndar ñu trottoir ci mm. ndar. Mm. micro trottoir par rapport ku ne wax ne ah ku mën a seede dégg ne lan la kii wala kii def ci ndar dama la wax ne loolu man sama en toute modestie. dama lay wax ne j'ai fait mieux j'ai fait plus pour Saint-Louis ma fatali mbokk auditeurs yi yéen a ngi si rajo euh, Banlieue FM ñoo ngi fi si Pikine 98.1 point 1 tey nag nga am mbégte di dalal euh, maître Abba Talib Gueye di candidat euh, jiite coalition alternative le vert dem si jongante yi wax na ko léegi nee na si département bi daanaka ñoom bokk nu fa ñoo ngi si commune bi donc seen force yëpp dañ ko concentré si commune bi. Euh, maître balaa nuy dellu si waat daanu dellu si tuuti si politique ñu wax juste si bilan conseil municipal bi juróom-ñaari at ngeen def xam naa ni bilan bi moom euh, war nañ ko war a mën a laaj waa Ndar ndax bëggoon naa tuuti ñu wax ci sa plateforme bi ak sa xeex stade bi te foofu laa bëgg sax ñu wax si gis nañu nga jóg taxaw ànd ak benn kuréel ngeen bañ mbir moo xam ni dafa nar gàllankoor bu baax a baax nekk nu gone yi si Ndar muy stade bii nga xam ni cosaan si dëkk bi. jaraafu dëkk bi nii dañ ko fi taxal. waaw bi si njëkk mooy euh, bokk na ci li ma wax en toute sincérité muy bokk na ci faiblesse su démarche bi ci luñ ko mën sikki moo di diisoo gis nga boo fekkee ni dana la jiital ay gor jox la dafay baax même boo amee xalaat bala nga koy doxal nga waxtaan ceeg ñoom. nga waxtaan ak ñoom laaj leen seen xalaat mooy li ma la wax participation wax parce que citoyen bi nag ci lu mu mënti dox mbirum wax naa bi ñuy wax euh, soppali tur yi dégg nga dañ ko na doon ñëw indi conseil municipal rek. Hmm. ñu wote ko man mii maa ko génne. man mii maa génne ne lii bu jàllee ba am. te hmm. gis nga heureusement ndar jox nañ ma raison parce que toole ba ca am moo tax ñu bàyyi ko. Hmm. reculer xaw ma nag bàyyi na ko mais pour le moment moom teg nañ ko ci suuf mbirum stade bi c'est la même chose. gis nga plateforme bi ñëwee dañ ne man lu tax ñu jiital ma ca plateforme bi problème bu ne dañ ne problème bu am dañuy seet ki nga xam ne mu moo ko war mën a porter moo war jiite. bu dee bu dee hôpital dañu wuti médecin bu nekk si ñun xam nga ba xam ne kooku dana ko maîtriser. kon man yàlla def na li ñuy wax ci sport. Hmm? <laughs> dégg mun naa wax ne dama ci doori ndàdd. ba agrégation ndax boo boytee da nga doon équipe nawetaan nekk vice président de la ligue de football. Hmm. nekk président de la ligue de football nekk vice président fédération nekk président fédération. Hmm. nekk président de la Linguère pendant combien de temps xam nga kon kooku moom am na lu ci xam ba nekk aussi membre fondateur du basket nawetaan du basket nawetaan man ak ñoom ma di ñoo ko créé. kon nga hmm. xam ne toute ma vie. ba xam ne problème boobu bu amee ñu ne ma yaa même yaa ci gën a ah, jekk. pour nga jiite ko lañ ci wax tamit kon xam nga problème sport ndar. Hmm. kenn du ma kenn du ma ko jàngal ndax man boobu maa ngi fi. Hmm. juguma fi ba may xale ba tey juguma fi xam naa li ci problème kon dèjà boo nee dama ko fiy jëlee da ngay seet lu nga ko fiy jëlee ak lu ndax bu fekkee ne ministère ndax du mairie bi mooy toppatoo affaire stade omnisport. Hmm. te terrain du du moo koy toppatoo. c' est l' état le ministère des sports ñëwoon nañ fi gis ngeen indi maquette. dégg nga ci final ODK bi wax ne budget bi. man génne naa génne naa dégg nga fi mu ko fi soleil bi nga xam ne yëpp appel d'offre ak ki ko gagné wax naa ne gis nga ba démolition bi ki ko waroon démolir fii ki ko sous-traité sama benn client la. Mm-hmm. dégg nga naa la ko wax yu su gee leen ko sous-traité ko pour mu defar ko alors bu fekkee ne loolu yépp dem na mais man xanaa bu fekkee ne état bi moo dellu ministère bi ne samay technicien dañu juum ndax lan bëggoon rek mënu fi naa dinaa gëm mais loolu amul. dégg ba pare ñu ne léegi ñoom bi ñu ñëwee ne léegi léegi budget bi lii la ñuy def ñoom de nañu defaraat stade bi fii maître Babacar Seye dégg nga li nga xam ne nag xaju fa nan ko def stade ma waat waat dégg nga. Hmm. def moom xam nga problème bi rek lay woon nañ ko. loolu moo doon projet à moo doon projet bi moo am moo tegu moom lañu kii ba xaalis bi ba vote budget bi ba ñu wax ne day door waaw lan moo ko fi changé. lu dul ñu ne léegi dañ fiy def ah centre d'affaires centre man centre d'affaires boo xam ne wax naa leen que ñu ree ne leen ne leen may ñu suñu peche bi dafa ndërmeelu suñu suñu suñu suñu euh, dañ ko waxee tourisme bi dafa ndërmeelu. mais centre d'affaires bi lan moo fa a si alors ba ma ma ne centre d'affaires bu dégg nga waxu na centre commercial centre mooy lan xam nga da koy def mu am ay bureau ay gan bu nu ñëwee luyee fa comme la luyee fa pour ñaar ñetti fan du indi dégg loolu dama wax ne dama wax ne bonul mais gis nga Racine Club ak ay kii am fii am na ay yeneen place yoo xam ne xaj na fa bu ñu bëggee def centre pour pourquoi fii ñu ne problème de sécurité problème de sécurité hôpital euh, terrain bi ñan ñoo ko seq la gendarmerie ak fale ñu ne parce que dafa xat ma ne boobu ba léegi ñu fay fubal boobu ba léegi. gérer wul circulation tey la war a gérer circulation te xëy na duñu football dimanche ba dimanche. Mm. te dimanche ñu bari dégg nga ñu mais ñun d' accord da ngeen ne dañu bëgg defar dégg nga stade omnisport. malgré que ñun ndar buñ nu laajoon ndax suñu priorité mooy li ma la wax. Mm. buñ nu laajoon lan mooy seen priorité daanu wax ne kat deux mille douze milliards yoo leen kat deux milliards yi nanu defaraat stade bi ba mu baax rek mu nekk. comme système anglais yi. Hmm. dégg nga def ko Garçonnet def ko yëpp ndax Linguère moo fi équipe bu mag gisoo lii sax mënul remplir dix mille personnes. Hmm. kon ñun ban équipe nationale moo fi nekk wala dara fii du c'est pas la capitale kon bu nu ko laajoon daan ne dix milliards yi xoolal Sadio Mané lu mu lu mu hôpitalu kii yom di trois cent millions ba mbari tout à fait dix milliards ñaata hôpital nga ci mën am li ma la ci wax ci quartier yi kon quartier bu ne daa fu ma def benn benn benn benn dispensaire au niveau mm-hmm. créé dégg nga boo xam ni à peu près li ma la wax dana mën a. kon loolu mooy priorité mooy li ma la wax c'est-à-dire mooy li ma la wax mooy xam nga toujours au revient. mais loolu du manque de vision de l'actuel maire de Saint-Louis. dégg nga xam nga yooyu boo koy wax. xam nga non damay laaj ndax est-ce que du manque de vision. mooy li ma la wax c'est c'est problème de démarche la dégg nga te on risque de nekk dans les mêmes pièges parce que man piège yu man sama programme yi nii nii laay développé ndax moom laa la wax gëmuma ko xam nga parce que lu mel noonu la def bu nu laajoon bu nu laajoon. nga xam ne c'est des priorités yoo ne dañu laaj amaat. Ah, kon da nga lay doon quoi. ma ne bu fekkee ni yow falu woo si dëkk li fi amoon rek moo fi am. moo fi am wala lu yées ndax xam nga bu nu demee am na ci ay ay ay ay ay programme yu tuuti yoo xam ne euh, am na yu ma seen bu demee ba problème yi nga xam ne état bi moo ko war mën porter état bi moo koy réglé ñu naan ñoom danga koy réglé xam nga kooku. booba bëgg nga di bëgg nga bëgg nga nax ni ñu jël seen waa mais mais ce qui est moo di. Euh, ma ngoog la mairie da ngay wax lan la mën a def état am na loo xam ne daf ko def fu ne gis nga Promoville bari na fii tëli yeeg yooyu fépp lan ko def. état bi moo ko def état bi moo ko def ndar dafa delloo malgré que nag defin bi doy na waar parce que ñun dégg nga au niveau de la mairie waroon nañ gën surveiller ba xam ne xoolal yu bari ni ñu ko defee du noonu. Hmm. gis nga effort bu bon la. kooku moom am nañ ci kii parce que ñun lañ ko jox ñoo ci war def même financé wuñu mais am na yoo xam ne mooy problème mu maire yi. mais mooy xeex ba les 2 milliards yi nga xam ne ñoom lañu am budget. lu ko yokk lu ko yokk dama ne la coopération décentralisée. c'est un dar boobu moom dafa ndar mooy la. waaw moom laa la xoolal ndar ndar ndar léegi non. parce que xam nga lu tax bu ñu ñëwee duñu fi fekk kenn.

seen seen dëkk seetal ndar ñi nga xam ne dañu ñëw indi seen potentialité man xam nga en tant qu'avocat yu bari dan may contacter ñëw mais bu ñuy ñëw lan la fiy jënd ay baar ay yu ma xamul xam nga bu ma leen waxee dana ma may ñoom gisuñu fii bureau boo xam ne bu nu ñëwee ñu jaay leen ndar yow jaayoo ndar ci internet jaayoo ndar fili à partir de ce ku ñëw lan lay dem jënd ay baar ay yu ma xamul gën yàq suñu doom yi. maître yaa ngi yaa ngi ci conseil municipal te la benn nga wax place wala place Baya déjà ci tur nga xam ni du du tur nu a accepté bu fekk ni ñun Ndar fi. wax la ne du sax sama jikko di wax naa la wax la ma wax conseil municipal mais danaa la dégg ndax xam nga ñun comme football xam nga ku ne day wax hmm. day wax pour d'accord même boo ci d'accordul da nga am ngoru. maanu si waaw maanu ci mais baya dégg baya xam nga baya ndar mooy lan tur sax neexul léegi le problème moo di xam nga man dama bëgg dama ne nit ñi dañuy réfléchir baya ñu ne lu tax parce que dañuy dind turu Faidherbe place Faidherbe lu sax dindi woo turu pont Faidherbe jar naa laaj. te ma ne pont bi bi ma Masseck moo dikk fexe ba Ablaye Wade wàcc pont bi. fekk mu ànd ak Chirac wax ka ka si lañ ko defan tout à fait ah dindi ko dindi woo ko waaw nga ne yow li ma arrangé naa ko fi baax li ma arrangé wul naa ko fi dindi. motax tax bu ñuy wax dinaan ki dinaan parce que ki est ce que doon opération de séduction rek pour calmer un peu activiste yi ak ñu doon yi loolu moo tax la gis nga loolu gis nga réew ak dëkk boko yor da nga yor fitna da daa déglu ñëpp daa déglu ñëpp la majorité bi wax. Mhm. nga waxtaan ceeg ñom def ko. historien yëpp mais do top ni parce que ñi ni nañ yëkëti yëngu rek né ah loolu loolu c'est pas comme ça parce que moo dal ci ay ay ay ay. li nu li nu criminaliser le viol li nu criminaliser la drogue nga xam ne nit ñi yuux rek ñu def ko te efficacité amul amul ci. mais béton bi nu def si place def 4 ans ngi ñu koy defar rek mu tëw mu tëw aussi day na man de dinaa la wax bu ñu ko teeloon pare ba pare ak na man de dama lay wax bu bi. da nga koy dindi da nga koy dindi. xam nga ne. naaru la fa suuf xam nga ni lii non seulement. telik lii amatu fa nit ñi dañ leen rafetal xaw ma man may de dama lay wax ne nan waxante dëgg mais da ngay da ngay wax sax ne ñi ko def mm-hmm. man de li jaraluma 10 millions nee ay milliards man de jaraluma 10 millions parce que xoolal la fa nekk la fa la fa nekk waaw bu nu ko taxaw woon dégg nga xool ko bu baax ma go barki dem dama romb waji di di tabax funi na fu ñuy noppaloo mais ma xool mu def ko ay dents de si ma ko li nak mu ne ma pour bo mën dalal sa loxo buñ tàllal sa tànk mané ku fexul ku fexul daa fexlu wa liggéey bi lu tax apex yor ko. Ah, apex dama ne xam nga problème moo. wala jotoo jotoo am xam nga xam nga yoy dama lay wax ne la. ñu savons tous xam nga marché yi ni muy démé fi au Sénégal c'est le problème deng ta marché yi pour mu dox sax bu gëna dox deng dafa am guerre gi ak ñi nga xam ñi kay joxe ñep luñ ci am fokk mu deñ dama lay wax yeesaay sax nga ni naan ni kii monsieur 10 pour cent et cetera te boo seetee ndar xam nga am na passage yoo xam ne télé bi dañ ko dafa gën ndaw. ndaw tout à fait. dan lay buñ la fayee 8 mètres yow nga def 6 mètres. Hmm. fay na la juróom benn mètre de yow a def nga def juróom benn mètre parce que ñam ka seqal yépp booba booba tong tong na ngeen ne kat pour ñaar mètre yooyu hmm, nan nan nan nan ko séddoo waaw loolu nag bu fekkee ne dégg nga ña war taxaw. Hmm. taxawu ñu xool loolu mën ko dénoncé mooy li ma la wax suivi mais mënoo def suivi yooyu bu fekkee ne nekkoo fi. yooyu mënoo def suivi dama lay wax ne la responsabilité ak surtout les pouvoirs d'un maire war nga di doxantu ci dëkk bi chaque jour. du dox fu ne di xool dafa xew di dox waxtaan nit ñi ñi di la yokk xel. Hmm. parce que li nit ñi bëgg nga koy def mais yooyu fekku la fi n'importe quoi bi moo ne la dama ne. ndar na par rapport 2014 2014 en tout cas 2009 ba 2014 ndar gënoon na ubbeeku gënoon na que ndar nga ne nga toujours les projets de la commune. ça pose problème je parle man suis conseil municipal laa non wax dama wax ne la. donc projet dama lay wax ne la fii quatre-vingt-dix pour cent wu projet yi c'est des projet de l'État ah dama ne boo ma ko teelan wax ma indi la xam nga man conseil municipal dañuy jox document yëpp. danaa la wax bu si ne dégg nga fan la jóge ndax moom moom lañ bind ñaata la ak kan financé. ba xam ne danaa la wax tey jii li nga xam ne mooy ci fonds propre mm. maire bi mënul nag occulter ne yenn yi quand même du ne maire bi amul tout mérite d'avoir posé ces problèmes jéem a def ay démarches pour état bi. Mm. dégg nga malgré que Promoville moom yow xam nga Promoville dëkk yëpp la. Mm. tout à dëkk yëpp la waaw dëkk yëpp la mais li lay jugé yow mooy yi nga xam ne yow yaa ko defal sa démarche bopp. dégg nga dem naa wuti xaalis pour defar marché yi def naa di et cetera et cetera c'est-à-dire yi nga xam ne ma ngoog parce que léegi maire yi yi comme entreprise nga koy gérer. Hmm. ndax am nga possibilité lépp. dégg nga am nga loolu yëpp am nga ko seetal Khalifa Sall bi ñu koy créé problème bi mu kilee affaire daal yi ak Pape Diop pourquoi parce que dañu dem ak banques yi d'accord pour def ko parce que léegi dégg nga loolu loolu la dëkk bi di xew doo jël yëpp teg ci ci ci ci ci ndodd état. Hmm. moom laa la wax ne la tey jii xam nga xamoo ne maison de l'île état bi moo ko moo moo ko. moo ko pour 400 millions. waaw

dégg nga doxal nañ ko te mu am problème parce que waa urbanisme yooyu def nañ ci problème dégg nga ba xam ne à partir de am na quelque réalisation yoo xam ne moo ngoog mais boo xoolee réalisation yooyu par rapport au budget ndax budget bi 2 milliards xam nga c'est triple pour dara tout à fait dégg nga c'est triple c'est un c'est un c'est un budget boo xam ne mm. qui est insuffisant depuis des mm. xam ne donc boo seetee loolu mënoo yow investir lorsque da nga teg teg toujours ci stade budget les 90% ah, les salaires hmm. parce que mois salaire on va on va aller très vite maître euh, euh, on est d'accord on est d'accord que vous êtes comptable aussi du bilan de l'actuel conseil municipal vous êtes comptable. mais solidarité parce que comme nga je suis dégg nga. Mm-hmm. ñu may dégg damay dem te damay wax lu baax ndax man loolu la lu baax man ku fi nekk maire damay bëgg nga réussir de xam lu tax dangay dem maa fiy des te bu ma ñëwee na ñëpp échec dégg nga ku ñëw échecal mais man maa koy subir maay am dëkk bu bon rek. Mm-hmm. damay bëgg kañ yow defal lu baax bu keneen ñëwee def lu ko gën. Mm-hmm. dégg nga. mais comme li ma la waxee en tant que conseil municipal wax naa la ne la bu fekkee ni ñun dañu wax la ñëw ca conseil municipal bi dama bëgg nag nga dégg ma. dama ne jëf joo xam ne dafa jaar ci conseil municipal bi ma joxe ci sama kàddu même bu bu bu fekkee ne néewal la noonu sama kàddu solidaire naa ci mais ya nga xam ne dañ ko def en dehors conseil municipal. dégg xamuma ci dara xamuma nan ko doxalee loolu yëpp nag kooku moom moom. comme moo ku ma ci bëgg leen damay tooñ. comme en la démolition des deux mosquées de. de Guet-Ndar waaw waaw mooy li ma la xam nga xam nga xam nga am na mooy li ma la xam nga am na yoo xam ne buñ ko won di woon conseil municipal ñun dégg nga daanu ne d'accord nu daanu wax lu tax ne d'accord nu te kon sax gis nga buñ ko indi woon dañuy alerte hmm. xam nga ni ñu def parce que yi saa yi doo toog mu ba mu ba ne waxoon naa ko magum waxoon naa ko moo gën magum xamoon naa ko hmm. léegi dama ne ni nu def bi nu bëggee débaptiser les rues Hmm. xam nga kooku dañ ko def ci ci kiiwu conseil municipal bi daan la ko jox ay fan avant hmm. si la alerté ni mbusimaa ngi ñëw te it dégg am avenue général de Gaulle bu ñu bëggoon soppi wa gis ko bi ñu ko bëggee soppi dégg nga man maa ko génnee. Hmm. dégg nga ne leen musiba yii musiba non seulement boobu. mais rue de Paris nga xam ne Fama Demba daf ne woon dañ koy soppi. te kooku nga xam ne surtout Fama Demba yaa nga fa. <laughs> dégg nga waaye ndax lañ ko stade bi gis nga. ba ñu waxee loolu on dañu taxaw jattu ne soccant. pour ne du fi amee donc li nga xam ne. ña ngi koy def ci biti ah ña ngi koy def ci biti nga xam ne loolu yëguma ko xeexu mbedd lay doon dama ciy wax sama soxla dama ciy wax sama kàddu te kooku dama koy xeex ba ñëpp xeex na ko mais loo xam ne ñëw na ci conseil municipal bi même bu ma waxee te d'accord noonu dama wax kooku man damay def solidaire ci équipe bi malgré que xam naa ne lii du lu baax mais mënuma ci dara loolu moom mais nag dama ne hmm. lay ñëw ca conseil municipal ci problème yi fi indi problème yëpp moo gën a néew

xanaa ndar dafa manqué ay leader ba nu jël ko di ko jox koo xam ne dëkkul ndar. xam nga te moom laay wax ne nanu moytu mu dal Linguère je le dis de haute voix. nu jox ko ku dëkkul dama ne nanu moytu mu dal Linguère moo di lan Saint-Louis Basket Club dañ ko politiser woon. dëgg la. c'est ça ndax dama ne ñun ñi amee équipe bu Linguère ay dizaine d'années. xam ne sa kër rek nga jaayewul pour def ci amee at club bu fubal moo gën dix amee juróomi équipe nag basket basket laajul xaalis bu bari waaw bu fekkee nee nag ñoom dañ daan ñëw dégg nga ah pouvoir bi bu dikkee surtout ni ko doole après après alternance bi euh, après Wade bu dikkee ñu ne nan ko jox responsable politique yooyu seen xarit seen xarit te dama ne ñoom dama lay wax ne gis nga boobu ba léegi moo ali ji nan waxante dëgg nitu Benno APR boobu ba léegi ñoo. ñoom ñooy gérer eh, seen def ko loolu parce que loolu bu ko defee ñun bañuñu ndax mais Linguère ñëpp dañ daan def kii bokk kii bokk ñi politique ñi bokk li mais affaire équipe bi. Hmm. mais buñ ko defee ñun ñëpp teg ñu fale bu ñuy ñëw sax duñu laaj boole woon ci xam nga nag mënoo ñëw bousculé wu. Hmm. dégg nga wu mais lu nu metti la. bu ñu demee nan ko waxante dëgg Tandian est un grand ami si dégg nga mais suivre naa fi bi mu nekkee président fédération basket problème yu am ak seeni basket club waaw kon déjà bu dul dara sax ñu dem koo xam ne président wu yeneen club la woon ah ay club yoo xam ne ay club bu xolam hmm. nga ay club bu xolam yow donc club raison la hmm. ah raison wa tax mu jël ko bu ñu demee ba Ndar mané ne ba ndar. Hmm. di jéggaani lolu booba ñun de ñu lu mu daal. te dama né lolu bu demoon bay am. Hmm. club bi bu demoon ba war ban am nga xamné c'est c'est c'est la commune de Saint-Louis kon maire ndar war na ko jël charge tout à fait né man kat may président bi ndax xam nga lu tax ci ndar la ci ndar. Hmm. ndax dañu ko bëgg ndam mais ñëpp bokku xam nga man damay wax né buñ doon def concours la mu bëgg sàcc bi jël paie dëkk Ndar pour wane ne moo gën a est-ce que c'est pour des raisons politiques sax yow mi nga xam ne da nga jóg euh, yow da nga jóg pour pour Saint-Louis c'est wàllu woowu xeex boobu ñu fekkee ko ñun ñëpp nga am sa plateforme xeex ngir ñu bañ a toxal stade maître Babacar Sey, mais gis nañ si wàllu wa le monde sportif autour d'un président d'une très grande équipe jog moom tim di jàppale actuel maire bi pour rek ñu délocaliser stade bi. mais doy na waar ah. xam mané tax ma ne la xam nga sànq wax naa la ne la et je le dis je pèse mes mots ah man ku ma xam xam li may wax dama ne. syndrome bi bi bi bi. bi dal Saint-Louis basket club. mooy gerte laa mooy dali mooy ma ne mooy gerte laa Linguère. kon mi ngi bu nu deful nànk redressé wu xoolaat dellu ci suñuy humanité dégg nga le club va va échapper aux parce que xam nga lu tax xam nga projet baax na ne damay def nii nii nii profession tolloo gunu foofu gis nga ik laa Linguère. ci le patrimoine de tous les Saint-Louisiens hmm. bu dégg boo ko bëggee jàppee ci ñi nga xam ne ñooy verse minorité quatre 5 mu nekk loo xam ne par rapport bi waa Ndar génn ci seen loxo nga génn leen ci cette équipe ci suuf la jëm. Hmm. parce que dama daan wax ne man bu nekk ne leen man ki ma gën jaaxal du di ki may jox cent mille versé at mu ne. Hmm. mooy ki nga xam ne yéesaay buy dem stade wala ñu déplacé ma maa koy yóbbu jox ko paas. jox jox pass mais bu xex jotee moy xex man ki nga xamné tay tey bu Linguère gañewul du lek du nan xolam di metti te joxewul dërëm man koku moy sama problème ki nga xamné tay jaay jaay ñew rek pour fofu jaay gerte tiafam ñëwati ñoy sama problème kon la Linguère c'est le l'affaire des saint louis boko ko japp ci ku am alal wala nga japp ko ku mën verser wala japp ko ci mbir intellectuel da ngay ray hmm. Linguère la Linguère est un club traditionnel. la Ligue doit rester un club traditionnel. parce que Richette la boo xam ne mag ñi loolu lan ko mais qu'on le dise la Ligue est en train d'échapper à Saint-Louis ça je le dis avec regret moi je prends de plus en plus du recul du recul. parce que beaucoup ñëw dégg Dengue, ki nga xam ne. mu yaay takk la xeex doo fekk xuloo. Mm-hmm. dégg les les anciens nga xam ne anciens footballeurs Linguère yi. te nekk fi dégg nga dégg nga leen principe yi ñuy posé dégg nga yooyu yëpp ah, intervenir naa ci pour bëgg jàmm malgré que nag li wax yëpp tout tout n'est pas faux li ñu wax mais xam nga dana am foo xam ne bu tolloo ci mag da ngay def dégg nga pour yëf yi dëkk pour ngeen mën waxtaan calme ngeen mën waxtaan mais comme dit c'est le moment et je fais appel à ce au président ak ñi ko yor nanu woo ñëpp anciens yeeg yooyu yëpp ñoom ñu toog waxtaan seetaan daan li ngeer dégg nga delloo ndar njukkal ndax li ngeen fu mu toll fu mu toll dégg nga ndar moo tax te ndara ko moom alternative les verts mooy coalition bi maître ba talib gueye jiite moom lañ doon dalal si banlieue fm tey ji si samedi samedi ji yamok euh, ñaar fukki fan defena wala fukki fan ak juróom-ñeent en tout cas ñaar fukki fan defena si <laughs> atum ñaari junni teg ñaar fukk ak euh, benn maître gueye élection yi daanaka 23 euh, janvier lañu wax ni lan koy def tey jii fii nu toog nii lan mooy say change ak lan nga war a yëkkati yóbbante ko waa Ndar balaa ngay. balaa ngay dama hmm. bu bisu wote ba jeexee ba mu jeex ba nu tëj bureau de vote yépp yëpp nekkoon ne ñibbi candidat yëpp génn leen nekkoon ne ñibbi bu ñëpp demee ba Kumba Bang. oto yëpp day continuer sama oto mooy def marche arrière dellu si mm. ma ne nañu seet ñi jëriñ ndar démb jëriñ leen tey ñu mën yaakaar ne danañ leen yor demee bu nu déglu ci ay wax yu neex nanu xool ku si ne ca quartier ba nga dëkk ak yeneen parti ndar lan nga ca def nañu seet ku si ne ca liggéey ba nga yor wala poste boo fi ma sa occupé lan lu baax nga def ca ndar mais xam nga lu lu suñu taar ci ndar moom lay ñaan nañu bàyyi bëgg gan nañu bàyyi gu gan ku ñëw ni na mooma après def nu décevoir ñu bàyyi bëgg gan bëgg gan moo di lan boo soogay ñëw toog juróomi at ca dakar du ndar kenn xamul yéesaay sax boo ñëwee kenn du xam fooy dal hôtel ak wala sa kay xarit boo ñuy dégg toog problème mu ndar yëpp xeexu ndar yëpp fekk woo ci dara intéressé wu la nga toog ba mu ba élection ñëw ne ñu man maay waaja waaja mi ngi ci sunu biir damay wax en toute modestie wax naa la ko de te fa laay mujjee ma ne le sëñ Fall waxoon ne moom mooy Sénégal man mën naa wax ne maay ndar man jërëjëf maître Guèye jaajëfal junior bi nekkoon si wàllu xarale bi ànd seeg euh, ñoom Cissokho di jaajëfal doyen euh, Daouda Guissé ñu jox leen dig daje aser bi di ñëw incha allah si beneen jotaay.